lii amit ñu ngi ciy masawu ak euh, réew mi yëpp rawatina waa dëkk bépp ndax mbir la moo xam ne euh, yàlla moo ko dogale nii euh, bari na ko teyit nag ñu xam ne mbirum yàlla moom moo ko xam moo xam nu mu koy lijjantee moo ko xam nu mu koy doxalee yéen nag ngeen muñ ngeen muñ nag dafa am nit ko xam ne boo ko koy wax il faut nga indil ko luy war a tax mu mën a muñ maanaam yàlla rek la sax doy na sëkk ci ku gëm yàlla waaye nii mu def ngeen génn seen kër yi amu leen fu ngeen toog amu leen fu ngeen toggee amu leen fu ngeen lekk am na ku nekk ci kër nekk ci kaw nga xam ne buy taw sax du ko yëg waaye li leen def nii kenn ki rek moo ko def kookee nekk ca kaw yàlla mën na ko faa fekkee loo xam ne duutu bëgg nekk ca kaw kon mbir mi euh, bu wéeroo ci moom rek mën naa mën naa mën naa sedd bari na loo xam ne yàlla dana la ko teg mu mel ne lii la mu niru lu metti lool te am na koo xam ne moo la ëpp la lu ne teg na ko loo xam ne bu ñoon jot ci lii eh, mu mel na nag li ci des kon mooy eh, ni ngeen ko waxee ñi leen dimbale yëpp ñu ngi leen di sant yaakaar naa ne lii ku fi ñëw boo dee nit ah bu dul bu dul sa xelit bu fekkee sa xel rek a yëgit sa xel rek kii tamit bu sa xol yëgutit sa xel moom mën naa yëg na ko gis léeg-léeg nag lu bare bare bari nit ki da koy da koy da koy yëge da koy da koy doxe xelam nga xam ne xool ba bu fa jógee rek fàtte ko waaye lii kum dëlut mënoo koo expliquer kenn euh, liñ ci wax rek mooy euh, ñu jéem leen a ñu na ñëpp ñëpp jullit waxuma jullit waxuma tàll bi rek mais na ñëpp nañ ci jéem a xool nuñ jàppalee ñu fi ne ñun de gis nañ ne dëkk bi foo wëlbatiku gis nañ ay miir yu ñu wër tëj ko bari na fi lool bu fekkonte ne yàlla def nañ ñu mën a fexe ba miir yooyu ñu def fa ay ay ay ay ay ay tànt euh, li ma gisit ci bis ci ci ci bitti fu ne ña ngi fay togg ko yàq parce que kii amul fi mu toog amul fu mu toggee yooyu yëpp buñ ko defoon wutal leen fa ay tànt parce que dëkk bi bari na loolu bari na ay miir yu ñu fi def yoo xam ne yaatu na lool damay bañ a dugg ci yenn détails yi am na itam ñu fi am ay kër yoo xam ne ay seen kër la te dara newu fa te nit ki lu mu mën a mën a xel war naa bàyyi xel ne kër moom benn rek muy bàmmeel budul boobu da fa jóg bu ko defee nag nañu fexe nañ dimbale nit ñi ci barab yooyu nga xam ne kenn ko am sa kër wala kër yi fi ne yoo xam ne dañ ko miiree bàyyi ko noonu dara néew fa me nañ leen dimbale ñu defal seen defal leen bu ko defee togg yi nit di togg ci àll bi fu nañ ñu di ko fa kërëb kërëbee parce que kii amul fu mu toog amul fu boo ko joxoon lu dul jeex ay lu nekk loo ko mën a joxit amul fu mu ko defandikoo lu dul taaj ko ndab rek ne ko mi ngi nii nga lekk def naan loolu jamono yi baaxoon na ci ba màggal ci passé ndax lii ma gis ay caaxaan mënu ko dindi même bu ndox mi dañoon sax suuf si dellowaat ba nekk na meloon ba nit mën koo dëkk dina jafe kon nit ku toll te bari na ci xam ne fi ne dañoo bàyyi nañu seen kër dañoo dem seen kër yi mbokk seen mbokk yi dafa fekkoon mu am jafe-jafe mu am lam lam këram sax doyu ko te màgg li ñëw mu war a am ñeneen ñoo xam ne eh, dañ dañuy ñëw ci moom kon ki bàyyi këram dem ci kër jàmbur kooku rek rek dafa metti ndax kër gi mënoo am sa kër dem ci kër jàmbur di fay <laughs> mu mel na na nga bëgg mu mel ka nga fekk tamit da nga ko da nga ko wàññil loo xam ne boo amoon pexe tamit dana metti ci moom bu ko defee am nañ ñoo xam ne tey boo leen tànte dafa leen ay toilette la di yàkk di leen jox lu metti metti danañ fa mën a muñ ba jamono bi jàll bu ko defee ñi ko war a toppatoo moom xëy na danañ ko mën mais lii moom du lu neex a lijjanti du neex lijjanti mbir la moo xam ne kon nag jàppal dimbali ba noppee suñ noppee nag ñu taxaw ci jéem a xool naka lañuy fexe ba lii amati waaw parce que nag euh, yàlla lu mooy def lu ne waaye lu nekk it amal na ko ay amal na ko saafara te itam nit ki def di di di di lu mën a doon it na ca na nekkal boppam te yaakaar naa ne bu ci ñëpp maas te ñëpp jàpp ci nag répp ñëpp ñuy jóge ci biteeg di ñëw di màggal ak nu mu di doon nañ jàpp ni fii ay jafe-jafe nga fi du fii rek xëy na am fu ne la waaye fu nit jegee te lu mel ne am fa solution bi moom na tàmbalee ci nun na tàmbalee ci nun ñi nga xam noo dëkk ak ñoom na tàmbalee ci ñun ñi nga xam ne am nañ suñu ñaari dërëm am nañ suñu su mbool man koo defar lu nekk lu nit mën a am ci loo xam ne daal man nga koo def mën a jàppale ñii ci tàng-tàng bi am na loo xam boo ko nee nit ki dama la defal ci ci lu dul nii tamit da ngay day da nga koy yokk coono rek kon nag eh, ñi ngi ñaan rek yàlla def fi jàmm te defal leen ko eh, ñu jéem a xool nag lépp lu nit mën a am daal ci dimbal ci am na ci ñoo xam ne ñi ngi fi amuñu lu ñu lu ñuy jëfandikoo même buñ ko amoon ci seen i kër mënuñu ko am fu ñu koy defee kon nag defe naa ne li ñuy gis ñuy saax ñuy yàq ka togg ka fu nañu defa def ay mbir di seet li nga xam ne moo ci gën a yell itam baax na ci lool sëñ Tuubaa moom lu nit di def xëy na moo tax moom moo moo tax moom rek a tax xëy na la nga ci bëgg waaye léeg-léeg nga gis ko nag loo xam ne dafa gën a dafay gën a gaawee